allo waaw ñett nga waxoon ñetti sondeel waaw def naa taal naa ñetti sondeel yi ñett la waaw waaw d'accord waaw taal naa ko nga ne lu may njëkk a wax ah noonu waaw noonu waaw naa lay wax waaw samay noon samay noon yu mag a mag yi sama noon yi bëgg sama palaas bi noon yi ma koy xañ yu ñi may iñaane sama noni yi buggul fu may bëgg jël sama place yàlla ngeen fayee ni sondel bi fayee naaw ma yéen ñu dëgër nañ bopp de ñii dañoo takku allo ok allo waaw man dama fay sondel bi ñu fayul de ah dañoo takku ah waaw waaw ma ma defaat waaw d'accord d'accord ok samay noonu yu ponkal yi samay noonu yu ngande yi bëgg sama place sama bureau bi di ma xañ sama liggéey ma président yàlla ngeen fayee ni may fayee sondeel bi ah ñaw ngeen <laughs> dof dof lu rek pay ngeen di def yéen nag sama noonu quartier yi sama noon yi nga xam ne ñoo ma wóor chaque jour di gis di ma iñaane di ma soxre surtout ñu nekk ci koñ bi ak ñu nekk ci ñooñ maanaam ñëpp ñu nga xam nañ maa bañ yàlla ngeen fayee nii yéen tamit ak moom mën yéen nag ñi nga xamante yéen ay sëriñ yi jox sama tur ngeen may liggéey pour ma jóge sama place bii dama bëgg ni may fayee sondeel bi yàlla na seen xam-xam bi jeexee tàkk tàkk tàkk set noonu ah <laughs> fay naa leen fay te waay non sama sëriñ bi dafa ay torop léegi nag ah, mën nañoo commencé yóbbi yóbbi yóbbi yóbbi ñëw leen <laughs> attan naa leen <laughs> bisimilah Allô C'est présidence. Oui, palais présidentiel. Bonjour. Oui, euh, c'est monsieur le président. Non, non, non. Parlez. Eh, moi, je viens d'arriver au garage de l'amitié. Oui. Et tout de suite même, on m'a agressé. Ah hein. Oui, c'est ça, on dit Sénégal, c'est pays de Teranga. Ah, eh, Allah. Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on t'a pris Ils ont pris mon téléphone. Hein? Ils ont pris mon argent. Hein? Même mes habits là. Ils ont tout pris. Ah oui eh, et, tu habites où, toi eh, moi, moi, je viens de comme ça, là. Ah bon Oui. Tu es de quelle nationalité eh, Moi, je m'appelle Brou Kofi Bruno. Oui. Je suis ivoirien. Ah, tu es ivoirien Oui. Bon, monsieur. Oui. Il faut appeler Ouattara. Allô Assalamu alaikum wa rahmatullah. عليك السلام wa rahmatullah. يا سيدي رئيس آه، سواء نحن طلاب عربيون استمعني نحن طلاب عربيون نختلف مع فرنسيون آمين وهم يعملون كعملنا ونحن نعمل كعملهم آمين يا رب العالمين وهم يأخذون شهادات عليا ونحن لنا هذه ذلك آمين يا رب لماذا لا نستوي معهم آمين لماذا يا جماعة يعني نحن يعني نحن ترى دمان ديك لما في بباخ آه. لما لا wax لما wax du ay ñaan du ay ñun étudiant arabe yi ñooy kaas suñu droit na ñu yemaleeg étudiant français yi laa wax waaye yéen ngeen trop mais kii kii yabuma bon yëpp arabe la rek ñaan la rek yàlla